yéesu daldi am kattan lool te bari doole bay def ay kéemaan kéemaan yu bari la doon def maanaam dafa doon doxloo lafañ yi di dekkil néew yi di gisloo gumba yi di doxloo sax ñoo xamante ne mu ñu woon dox di dem ci dëkk ak dëkk gox ak gox te di def ay miira ay com di def ay kéemaan yu bari noonu la yéesu daldi nekke ki nga xam ni moom la yàlla yónni maanaam ndax mu nar a muccal nit ñi ci bakkaar bi ñu nekk te def ci doon ànd ak kattan ak di def kemaan yu bare ci kanamu nit ñi ci kanamu mbooloo mi